koo xam ne bëggul Sénégal bu leen taal leen ñu taal dem leen déloger président ñu def délo di ko jéema a déloger mel ni ay xar mel ni ay dof parce que xam-xam bi soxlawuñ ko ba tax le temple du savoir bu ñu ko agressé c' une déclaration de guerre j'aurais envoyé les hélicoptères mooy on a envoyé hélicoptères yi armée ñu bombardé ña fa nekk yëpp di taal université man man dama bëgg un président bu am fulla c'est grave c'est extrêmement important dama dul mayete kenn muy jéem a taal dara Sénégal Sénégal réew jàmm la jàmm la ak bëggal donc à quoi pour jàmm am il faut préparer la guerre. gis nga boo bëggee boo bëggee jàmm aussi samay questions je pose des questions. nga mais dama bëgg foofu leer d'abord affaire université bi mais su may <laughs> poser question da ma bàyyi ni mu ko bëggee. donc euh, téléspectateur yi. waaw boo posé question bi tu paree ko ba réponse bi di leeral. non vous ne répondez même pas pour discuter ak ay parti yoo xam ni dañoo bëri histoire seen gars yi ñu ngi prison presque mu dina pare nag pour discuter ku bëgg Sénégal ku bëgg réew mi ku bëgg Sénégal jëm kanam ku dul ku dul taal bi ku lu yàq terre bi ku dul dem di jéem ay réseau euh, courant yi ak ndox yi nga bëgg ko dagg ah ku dul attaqué banques yi attaqué société yi taal station essence yi dugg ci Auchan yi. daal bés boo fi toogee da ngay restaurer peine de mort. je suis le candidat de la sécurité et du progrès loolu mooy sama slogan de campagne sécurité et progrès. et qui fait aussi. ah oui ma li ngay wax c'est très grave maître pour des omelettes il faut casser des œufs. Mm. dama ni ku bëgg nen di nga toj boo bëggee omelette di nga toj bu fekkee da ngaa bëgg jàmm am sa biir réew ay bandi ay voyou yoo xam tax nañ Sénégal yëpp jaaxle tiit kuy nalaw yaa ngi xalaat ñu taal sa oto taal sa kër. pourtant maître li ngay wax ni. ñooñu dañu la bàyyi ñu ko di yàq rek ak ñu nekk ay Canada naan dem leen taal kër jàmm dama la jëli. li li ngay wax ni la ñenn ñi di jàppee. ay mbirum euh, crime contre l'humanité ba yóbbu état bu Sénégal CPI on a vu l'avocat euh, l'avocat Juan Branco daal di yóbbu dossier boo xam ne jàpp na ni état bu Sénégal moom moo doon à travers en tout cas ses agents di woon xoqatal doomu aadama yi ñenn ñi ñu leen di rey ci anam yoo xam ni dara leeru si est-ce que tey yow li ngay wax nii du gën a encourager aujourd'hui Euh, ce dossier là peut-être ñu mën ko appuyer euh, foofu lee ca CPI. du ma wax ci loolu parce que loolu ku jàng du ko wax ku jàng xam ne CPI du loolu lañ état. lu tax ñu yóbbu kuy def sa publicité ak ak ña nga fa war a yóbbu nga def le contraire ña ootee mortal combat reyante leen gat sa gat sa dinaa rey président ba la mu rey ma j'ai besoin de deux cent mille ñun déloger président ñëw leen dee ku dee sa yaa juraat ñooñu la ñu war a yóbbu CPI waa état lu mu def. état lu mu def. nervi yi dañoo état lu mu def. état la ñuy jiiñ nervi yi. ma nekk ba ci loolu jiiñ état état défendre na boppam. à travers. ah oui son ministre de l'intérieur. Antoine a parlé. que des paroles. de que des paroles boo ko gëmee gëm ko boo gëmul sa affaire la. y a pas d'enquête. ah bon ci enquête la ñu mën a yow yow yaa nekk li may wax dama koy assumer ci enquête la ñu mën a ah, sukkandiku. pour xam kan moo def lan. yow xam nga ne enquête am na wala amul. xam nga ci enquête la ñuy sukkandiku ci enquête la ñuy sukkandiku pour xam kii a fait quoi on est d'accord. yow pour yow enquête amul pour que ñu ñu bëri ñu nekk prison bi rek lu dafa yóbbu. maître dama waaye ñu nekk prison 500 personnes yi jàpp. je parle du du dossier 500 personnes. ay voyou ay nervi ñu ngi ci prison bi ku leen jàpp. enquête loolu non ah, kon yow xam nga ni enquête am na. moo tax jàpp ñu bëri. enquête am na. jàpp ñu bëri. enquête bi c'est bouclé wala fan la toll. laaj ko Antoine xëy na mu xam fu mu toll. boo hmm. de l'intérieur dana la toll man liggéeyuma foofu di. ma xam secret enquête bi mu toll. pour un candidat qui. oui parce que am loo xam ne sama cër. man liggéeyuma dans les services du ministère de l'intérieur. ba hmm. xam enquête yi li ma xam mooy enquête baa dox ñu ngi jàpp rek ñu ngi jàpp rek. jàpp rek ña jàpp yu bëri na nañ libéré nit ñi waaye du ñu libéré ay bandi enquête tax ñu jàpp bandi <laughs> as bu doon enquête du jàpp gars yi taal ils sont en nombre ay ay Thiès ay ay ay Dakar ay Pikine tribunaux yëpp ñu jàpp rek. certains parlent d'acharnement. acharnement ci ay bandi maa ci kontaan acharnement ci voyou lu def xeeb naa ko fu ñu jàpp ci ay bandi rek lu ñu jàpp xeeb naa ko ndax am na ñu rëcc bu ñu jàppoon ay 3000 5000 10000 ma gën a kontaan bandi yi moom. chasse rek daqe rek duma rek tëj waaye pour naan euh, acharnement waaye bandi lu ñuy lu ñuy négocier ak moom di ko raay duma rek caw rek foyu amul ay négociation ak ay acharn moo war a am ci bandi ku bëgg a taal réew mi acharnement rek moo war ci mm. kon daal yow moom doo négocier ak négocier ay woyu ak benn opposant ah si si opposition laay négocier du ma négocier ak rébellion du du ma négocier ak rebelle du ma négocier ak salafiste du ma négocier ak djihadiste du ma négocier ak terroriste xam ñu may négocier opposition civilisée on a vu Khalifa sàll très civilisé ñëw dialogue national on a vu Cheikh Bamba Dièye on a vu Mamadou Diop Decroix ñëw nañ dialogue national bi dégg naa ñu daan waaye dafa am woon beneen dialogue entre benn waay ak ak ak président pour lan kook lan la bi ñu ootee nawle mi moom moo leen gën taxaw fee naa non non non ba Khalifa Sall koy yuuxoo ba demee. ci ñoom ah léegi dégg naa kenn du ko convoqué sax léegi ci réunion Yewwi ndax dem na dialogue national lu ñu bëggoon Khalifa du bokk Karim du bokk moom kenn muy bokk rek ñu ànd ak moom mu nax leen parce que bu ñu négocier Khalifa bokk si dafa iñaan soxor bëgg di nax Khalifa moo ànd ak moom rek ne mooy bàyyi xalifa Khalifa moom warul euh, négocier lu tax mu bokk. maître yaakaar nga bokk rek ñu ne ko tey dee. sa sa avis la soxla def ko def ko traite fu mu nekkee traite. sa sa avis la soxla par rapport ak aujourd'hui euh, Sonko anam bi ñu ko teewee est-ce que yaakaar nga ni c'est quelque chose de normal ñu ne Sonko tëj nañ ko euh, deux ans de prison ferme mais ba tey kenn yóbbu ko kaso kenn këyee ko ko mi ngi këram ba ba jamono ji man du ma ci wax affaire justice ak lu laal waa jooju lu ma ci wax ci affaire justice ndax dama bokk ci dossier bi. dañ leen ci teree wax. waaw dañu ci teree wax te kenn du ma yóbbuwaale yóbbu ma ay conseil conseil de l'ordre El Hadj Diouf suspendé nañ ko. même bu nangam nangam xam loolu la gars yi di affaire am lépp lu ko concerné ci affaire bi tëj tëjji sama yoon nekku ci presse bi la ma xam laa xam day jël ko sama poche. donte weesu na amu leen benn. lu ci wax parce damaa bëri noon te noon du tuut dañu may dañu may seet fu ne. mais on part du principe de quelqu'un bu ñu tëj. te yóbbuwuñ la prison est-ce que existe je veux dire. si si si yoon loolu du ci wax parce kon day am incidence ci moom. Hmm. dinaan ba wax nga ci war a ci wan a wax dañ ci waroon a maandu maandu naa yow dégg nga ni suspendre ñu ma fi ay fan. bien sûr. am ñu may wax allo bu ma ne allo El yow la ma ne boo bàyyiwul kooku sell moom da gis nga de yow de nekkatoo avocat summi nañ la ku ma ne allo ma ne allo yow dañ laa summi nekkate ma ne pat allo yow nekkatoo avocat nekk di ree xoolal ma Sénégal yi ni mu soxoree